mooy nguur jigéen ci dëkk bi président Macky Sall moo ko bëgg a daganal te duñu ko d'accord tey duñu ñu ko d'accord ndax kilifa diine ànduñu si islam da ko dàq ak suñu aada ku ne xam na ni kuréel googu nga xamante ñoo jóg pour xeex loolu man mii di wax ak yow contacté naa leen nee naa leen jox leen ma projet loi bi ma porte ko pour déposer ko assemblée nationale ndax loolu règlement intérieur assemblée ak constitution bi député la ko may a nguur te xam naa ne nguur gi parewul pour yóbbu ko assemblée pour ñoom ñu wote ko mais man bu nu ma ko joxee ma ànd ko ak député opposition yi dinaa jël procès bi déposé table président assemblée nationale ngir que ñu def criminalisation nguur jigéen ci dëkk bi ndax bu leen fàtte ni njiitu réew mi Macky Sall moo dem Italie ci benn seen télévision ñu ne ko ndax nguur jigéen ñi am nañu sañ-sañu manifesté woo ak wax seen i droit Macky Sall ni am nañ sañ-sañ bi am nañu liberté bi ci article constitution bi article vingt cinq moo leen ko may mooy le nouveau droit comme nouveau droit boobu dugg na nag ñu dem ba le droit de chan sans boobu noonu mooy ñi nga xamante ni mooy ñu bees ni te loolu lu ñu ko def yëpp pour jublu pour am xaalis pour mën a doxal seen bis moo ko waral waaye dañ combattre ba loolu fa am na kilifa dina d'accord si si mbirum assemblée nationale assemblée nationale ku ne xam na ni assemblée bii nga xamante ne ñu nekk bari na loo xamante ni am na fa loo xamante ni lu bari war nit ñi war koo xam mooy amul transparence bu ñu watee bis duñ ko contrôler bañ na ko ba li nga xamante ni moom nga dégg ñuy wax barki démo mbaay muy 59 milliards yu ñu jël jënd ko avion présidentiel bi sax dañ koo dëxëñ ci assemblée nationale ci ministre force armée député yi woote ko te xamuñu ko moo tax démb ci plénière bi ma wax ministre de finance ma ne ko 2018 2019 ba 2020 amuloo benn këyit boo mën a génne wax ni député yi wat nañ maanaam benn loi wala benn procès pour maanaam jox Macky Sall mu jënd alal mu jënd avion amul ci deux mille vingt deux mille vingt et un bi sa deux mille vingt et un deux mille ci la ñu yokk bés bi milliards francs CFA pour que wax ne dañ see war a jënd maanaam benn avion militaire équipé ko avion militaire nag bu ñu ko waxee pour ñun militaire ñoo tax mais waxuñu président de la république loolu moo waral député yi ni kon armée bi ñoom ñooy suñu kaaraange nañu wote léegi loolu sans ba moo tax ministre force armée bu ma sax ñu assemblée kenn du ko wote kenn du ko contre ndax armée bi moo tax ñuy def loolu nekkati ñoom bu ñu bëggee sàcc. wala ñu bëgg luubal wala ñu bëgg maanaam ndax sax xanañ àllu mi dañ koy jaarale ci force armée mais loolu wax naa ko démb dana fi jeex ministère bu dikkatee dinaa jël engagement dana càmbar système xool ko xoolaat ko ba nga xamante ni dana xam liñ si dugal ak liñ du dugal bañ na ko sax ba moom ministre de finance xam naa ni dinaa consulter ak samay avocat ñu jéem ko traduire à la justice ndax dégg ngeen mu lépp yoo xam ne secret défense la ndax ku ne xam na ni wax na chiffre bi bi nga xamante ni moom la avion bi jar te loolu loi da ko tere yaakaar naa loolu tamit il faut que ñu xool nan lañ koy defee ba nga xamante ni lu mel noonu déetu ñu daal ndax ñu ñi di wax ak yow ko xam nañu ko mais comme moom mooy ministre des finances yore ko bi ñu ko jaxasalee jaxase ko si biir moom mu di la daal di génne li nga xamante ni secret la boo xamante ni dañ ko nëbboon nga xam kenn wuru koo xam moom mu daal di koy wax pour ñëpp man ko ko kooku yoon def na aussi liñ si war a wax ñu wax ko si di waxaat ni fii nga xamante ni mooy Touba ni ma ko waxee sëriñ Mountakha dama am pas-pas am yéene bu rafet ngir bëgg koo jàppale ci commune Touba am programme aussi ndax Touba fi may wax a yow budget bi war naa ëpp fukki milliards ak juróom buñ ko jaar la yoon xool yan miis lañuy jaar pour que mën a sàmm dëkk bi mën a aar dëkk bi muy sécurité éclairage assainissement. génn fi mbalit mi nga xamante ni dafa nekk si biir dëkk bi yooyu yëpp ngir jàppale sëñ bi ci liggéey ba tax na nee naa ko boo ma tànnee day dinaa nekk maanaam pour jiite mairie bu Touba comme sëriñ bi mooy tànn nag bëgg naa ni mii mairie bi su si candidat dans le maire de Touba si si candidat dans le conseil département mais maire Touba nag sëriñ bi moo koy joxe te nee naa ko na ma ko jox loolu moom dama bëgg mu leer comme dañuy joxe rek sëriñ bee joxe te wax naa ko li ma bëgg ak sama amis ak sama yéene te mën naa ko si liggéeyal. pour mu jox man nag ki fi nekk dafay layaam layaame rek kenn xamul fan teg tànkam mu di loo xam ni kenn xamutoon dat ndax depuis ñetti at ak mi si ginnaaw élection yi war nañ koo def ko defuñu ko woon ku ñu xam ne ni bi mu ñëwee ensemble man mii di wax ak yow def naa amaan na man pour ñu def élection yi ci mois de décembre ngir mu bañ a vingt 2021 ndax li ko warloon mooy nguur gi si boppam dafa foo xool ne bu ñu tëggee élection yi deux mille vingt deux élection législative du ñu koy dàq ba deux mille vingt quatre ndax mun ñu def ñaari élection ñun bu ñu xamee loolu ñu def amandement mais ku ne xam na ne nguur gi lenn seen lenn leeru maa ngi sant aussi ñi nga xam dañoo bokkul APR te démissionné ñëw fekk suñu tey ci bokk gis-gis te xam ni ab tàmbali la mais képp ku nekk APR te nekk si département Mbacké. pare nga pour bàyyi APR ndax amul njariñ sàmmul kàddoom gëmul sëñ Tuuba kon jàpp naa ni fii amuñu ku ñuy bëreel ndax bu ma dee yëkki nii ñu fi des ay yaw jàll ñu ne yeneen candidat yi kon du ma seen moroom